radiallahu taala an asxaabi rasulillahi salallahu alayhi wa sallam ajmain wala xawla wala quwata illa billahi alalil azim ya himmata cheikh yuxduri lana bi hada almaxdari waltaati fi bi nadratin taati lana bi zafari ñu ñëw léegi suñu darsu nasiha incha allah tey ñu ngi ñëwaat ci ifadatu ahmadiya waxu mawlana cheikh tijaani radiallahu anhu mu ne kullu ma dakartu lakum mimma tafaddala allahu bihi ala asxaabina lam yakun bi nisbati lima huwa maktumun nuqtatan fi bahrin Cheikh Tidiane radiallahu anhu mu ne li nga xamante ne tuddal na ko eh, ñeel ci ay ngëneel ci saxaabaa mi maanaam saxaabaa liñ am ci ay ngëneel te mu waxal leen ko mu ne moom tudd sax xaaju ngëneel boobu noonu dégg maanaam li nga xamante ne moom lañ nëbbu lu mu tuddut dégg nga moo ëpp fuuf dégg nga mu ne su ngeen xamul nu mel mu ngi mel ni benn toq ndox boo sànni ci biir géej maanaam ak li mu waxal yëpp saxaaba mi asxaaba mi moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu ne lim nëbbu moo ëpp fuuf dégg nga mu ne mu ngi mel ni benn toq ndox rek dégg nga ci biir ci ci biir géej. loolu ñu ñu ñu ñu bàyyi ci xel mu ne beneen wax ji mu ne kullu ma dakartu lakum fi hadihi tariqi xaqun waaqiun in salim naa min makrillah Cheikh Tidiane mu ne lépp lu ma leen wax ci tariqa ya dëgg la bu nekk mu ne su fekkee mucc nañ nag ci pexem yàlla waaw su fekkee mucc nañ ci pexem yàlla lim ñu waxoon yëpp lenn rek mun na ko dëggal ne lépp li mu waxoon dëgg la mooy fayda tijaaniye bi mu diggoon ñu nga xam ne ci mujj dundam la ni ñu ko diggoon taati faydatuna la asxaabi xata yadxulu naasu fi tariqatina afwajan afwajan gim ñu ko diggoon loolu rek day wone ne dëgg la waaw boo mu ne fa ruslu alayhim salaatu wasalaam ala jalalati qadrihim wa uluwi mansibihim ma aminu makrallah mu ne ànd nag yonantu alayhim salaam mu ne ak seen màggaay guñ màgg dégg nga ak seen wàccuwaay bu kowe seen cër yu kowe yiñ am ci yàlla yëpp ñoom yonantu yooyu maa aminu makkara laa mosu ñoo wóolu pexem yàlla maanaam yàlla bu mu la yëkkati mukk ak cër bi lum kowe kowe kowe kowe ba nga yaakaar ne yow mucc nga ci pexem yàlla ba maanaam bu ko neexee mënut laa rëkki bu ko neexee mënut a nangu lam la mayoon bu ko neexee mu la jëlee fa nga nekkoon mu teg fa keneen yàlla bu ko wóolu mukk waaw mën nga jaamu jaamu ko jaamu ko ba nga ne man kay alhamdulilah aljana laa jëm mu jël la yóbbu safar loolu mooy nga bul wóolu pexem yàlla dégg nga moo tax mu ne falaa man na makkarullaahi dégg nga makkarallaahi illa al qawmul xaasiruuna loolu alquran la falaa yaman nu du wóolu mukk makkarallaahi pexem yàlla illaa qawmul xaasiroon lu dul ñu perte ñi ñu perte ñi rek ñooy wóolu pexem yàlla waaw ngeen li bokk na ci waxu Cheikh Tidiane radiallahu anhu fi mu waxee ne taifatun min asxaabina law ijtamaa akaabiru aqtaabi hadihi l ummati maa wazanu shaaratan min bahri ahadihim mu ne kuréel a ngi nii ci suñu saxaaba yi saxaaba yi nag bu leen fàtte Cheikh Tidiane désigné woon na leen Cheikh Tidiane waxoon na ci saxaaba yi mooy ba mu waxee taati faydatun ala asxaabina faydu dina ñëw ci suñu saxaaba yi kon saxaaba Cheikh Tidiane mu ñi nga xam ne faydu dina wàcc ci ñoom ñooñu nag lay wax ne taifatun benn kuréel min asxaabinaa ci sama saxaaba yi law suñ dajale woon um eh, akaabiru aqtaabi haadihil ummati ñi gën a mag ci xutb yi ci xeet bii nii maa wasanu duñ pesé tan benn pepp kawar min baxri ahadihim ci géeju kenn ci ñoom dégg nga léegi nag kuréel googu noonu moom la bàyyi di wax ne sittatun min mi iina dégg nga am na juróom benn ci téeméer juróom benn yii ci téeméer law wuzina sha'ratun buñ pesé woon yaa ngi dégg benn pepp kawar ci ñoom mu ne la xafatil awliya mu ne eh, eh, eh, wëli yàlla yi danañu nëbbatu kenn dootu leen gis dégg nga pepp kawar googu liñ ci jublu mooy seen leer seen yëg-yëg ci yàlla dégg nga juróom benn ngi seen yëg-yëg ci yàlla ci kuréel gi lañ bokk mu ne suñ leen pesé woon seen yëg ci yàlla dina fay mboolem leeru wali yàlla yi nga xamante ne ay xutbu lañ dégg nga ay xutbu lañ dégg nga ridwanullahi alayhim mu loolu nag la wax maa wazanu shaarati min bahari ahadihim yaa ngi dégg maanaa buñ pesé woon benn pepp kawar tukkee ci seen géej ju kenn ci ñoom su boobaa dañuy gis ne ñooñu dañuy fay seen wilaya dafay fay Seydi Euh, ibnu baabal alawi soo demee ci munnitul murid moom daf ko woy moom itam waxu Cheikh Tidiane bi def ko woy wax naa la baay woy na ko mooy fi mu waxee ne sittatun min mi ina la wuzina shaaratu min ha la xafatil awliyaa bàyyi teg ci ne tilka min saxbi cheikh bàyyi mu na juróom benn yooyu nag ñoom ñooy saxaba Cheikh Tidiane yi tilka juróom benn yooyu sittatun dégg nga min saxbi cheikh yi ñooñu ci saxaba Cheikh Tidiane yi lañ bokk bàyyi mu ne faaja bi xutbin bàyyi ci ki jiite xutb mooy njiit ah, fa ajab bi xutb ni yéemul ci njiit boo xam ne haza sabqan mu ne raw na ñëpp waaw haza sabqan ashabul asfiya mu ne te mboolem sahabaami ñu sell lañ moom la ibnu baba woy moom itam ci munneetul murid taifatun min sahbihi law ijtama aqtaabu ummati nabi muttaba ma wazanu shaarata min fardin minha mu ne benn kuréel la ngi nii dégg nga kuréel goo xamante ne ci sahaaba Cheikh Tidiane yi lañ bokk suñ daje woon mboolem xutbu ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga euh, euh, euh, ci yonantu boobu nga xam ne moom la ñëpp topp mu ne benn pepp kawar ci kuréel googu noonu dégg nga benn pepp kawar ci kenn ci kuréel googu noonu dégg nga mun na lëng dégg nga mboolem xutbu ummatu Muhammad yaa ngi dégg radiyallahu anhum bàyyi mu ne kii ibnu baba mu ne radiallahu anhu fa kayfa bil imaamil fardi kon loo xam ci seen njiit bi su fekkee ne juróom benn yooyu kenn ci ñoom pépp kawaram mën na peser ummatu muhammad seen xutbu yëpp ñu bokkut ci kuréel gi dégg nga lan nga xam nag ci seen njiit bi kileen leen jiite ki kenn xamu ko te loolu ki leen jiite du kenn ku Mawlana Cheikh Ibrahima radiallahu anhu yaa ngi dégg Cheikh Tidiane radiallahu anhu Cheikh Tidiane radiallahu anhu mujj dundam juróom benn doomu aadama la tëjool ci biir néeg dégg nga juróomi la tëjool ci biir néeg moom moo leen juróom benneel moom ngay dégg dégg nga ñu naan xiina eh, eh, eh, shaddat xaraaratul qalbi fiihi qaala yudaa lana min sahbi haau bi mu demee ba tàngooru yaramam bi sonal ko lool lool moom Cheikh Tidiane mu ne nañ ko wowal juróom ci ay saxaabaami léegi nag ci lañ ko wowal juróom ci saxaabaami juróom yooyu la tëjool ci biir néeg mu juróom benn leen moom Cheikh Tidiane jox leen asraar yi nga xamante ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wa joxoon asraar yooyu nag dégg nga Baay radiyallahu anhu ci njëlbéenam moom itam juróom ñooñu la tëjuloon mu juróom benn leen te juróom yooyu mooy ma Ibra Fall mooy Seydi Alioune Cissé mooy Serigne mbay Niass mooy Serigne Ousmane Ndiaye mooy Cheikh Omar Touré dégg nga ridwanullahi alayhim dégg nga ñi bàyyi juróom-benneel leen dégg nga ni ci mujj ak Cheikh Tidiane yi mooy débuté ak Cheikh Ibrahim waaw bàyyi bi mu leen juróom-benn lee ci la leen jox mbooleem asraat yi nga xamante ne moom itam mu waroon na leen koo jox dégg nga ba noppi mu ne leen na ngeen joxante seeni secret moo tax mag ñi ñoom dañoo bokkoon ay secret yi joxante woon ci seeni biir dégg nga ñu bàyyi ci xel loolu yëpp nag lu mu jàngale mu ngi jàngale la nga xamante ne. moom la Mawlana Cheikh Tidiane mujj jàngale ci mujj dundam te loolu la bàyyi débuté yaa ngi dégg ci dundam moom Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu moo tax ñooñu ñuy wax taifa boobu kuréel googu bu leen seeti dégg nga mooy Cheikh Ibrahim ak ñoñam dégg nga moo tax euh, ibnu baba ñaan nag jaalana man xalaqal barriya dégg nga yàlla nañu def ki nga xam ne moo bindi mbindeef yi min hadihi taifati al aliya mu ñu mu boole ñu ci kuréel gu kole kowe googu noonu yaa ngi dégg wa anhu fi adadi hadihi lfia min sahbihi aksaru min sitta nga mu ne mu def ñun itam ci ñu bokk ci limu kuréel googu noonu nga xamante ne ci sahaaba mi lañ bokk aksaru min sitta miatin nga xam ne ëpp nañ dégg nga juróom benn téeméer dégg googu juróom benn téeméer lañ te juróom benn téeméer yooyu mooy asaabu Cheikh Tidiane yi ëpp dañ ko wala bëri nañ daal bëri nañ <laughs> waaw waaye lu mën a xew daal bàyyil xel juróom benn yi la Cheikh Tidiane yi mujj a tëjool waaye juróom benn yi tamit dégg nga moom la bàyyi njëkk a tëjool dégg nga échangé wante ak ñoom ay asraar yaa ngi dégg ñooñu ñooy dégg nga taifatu min ashabi Cheikh ñu ñooy yi nga xamante ne ñu ngi bokk ci asaabu Cheikh Tidiane dégg nga radiyallahu anhu dégg nga ñooñu nag bëri nañ lool waaw parce que sittatun min mi iina waaw juróom benn ci téeméer la wax sittatun min mi iina juróom benn ci téeméer kon juróom benn téeméer lañ law wuzina sha'aratun min haala xafatil awliyaaw buñ génnewoon kenn ci ñoom pepp ka waram mu ne wali yàlla yëpp seen leer dafay fay dafay nëbbatu kenn dootu leen gisati loolu nag la Cheikh Tidiane woy ca ifaada ahmadiya wala moom la waxoon taifatu min ashaabina law ijtamaa akaabiru aqtaabi hadihi al wazanu shaaratan min bahri ahadihim waaw kuréel gii bokk ci suñu sahaaba yi mu ne buñ dajal woon xutbu ummatu muhammad ñi gën a mag yaa ngi dégg mënuñoo peser benn pepp kawar bu jóge ko ci seen géej géeju kenn ci ñoom yaa ngi dégg ñoom ñan ñoom juróom benn téeméer yooyu noonu dégg nga wala ñoom juróom benn ñi xam ne ñoom ñoo waroon imaam ñoo waroon imaamul fard bi te imaamul fard bi dégg nga mooy kii ibnu baaba di wax ne fa kayfa bil imaamil fardi lu ngeen xam nag ci ki nga xamante ne moom mooy seen njiit mooy kenn ki leen jiite dégg nga kooku nag la bàyyi di wax ne tilka min sax bi cheikhi fa ajab bi xutbin xaasa sabqana saabul asfiyaaw bàyyi mu ne ñooñu juróom benn téeméer yooyu da nga ñoo ñooy sahaaba Cheikh Tidiane mu ne waaye yéemu leen ci nga xamante ne moo leen jiite fa ajab bi xutbin yéemu leen ci ki leen jiite xaasa sabqan mu ne kooku raw na ñëpp peeg na mboolem raw yaa ngi dégg mu ne te mi ñëpp ñu sell lañ dégg nga radiyallahu anhum allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqqi muxtaari azim abonnez sur notre chaîne daayiratul fadli kuñ fa nomee war ngay sant yàlla ñun lay digil kese la dem si di baram